ah ah. Capitán Muñoz, ¿ah? ¿Apre había sido acá? Bueno. ¿ah?

Les présent à la SCDGO et d'autres notables comme euh, Jean-Marc Condé. Donc euh, voilà, on est en train de faire les euh, présentations des équipes de la finale le soir. Voilà, donc la mère Bambafal est en train de saluer la brillante équipe de Garaf la nga xam au moo final woon daaw jël ko ñëw bëgg jëlaat garab

Biz de final bu an sonra final bu ne? 啊！ <laughs> damay remercier wa medina yeb ñi fi tew ma ngi leen di remercier ñep di remercier mamba Fall madame Diawara ak euh, sama rakk ak ñima invité won ñep ñi participer ci tournoi bi

Euh, le tournoi s'est terminé en de bon terme également là on est en train de la les fay ñu en présence de monsieur le maire également madame Diawara madame Ayanda nga je lañ euh, également la présence du commissaire de la Médina qui a am importance quand hein. kon fait l'aide de la Médina a une jeunesse consciente rôle, le commissaire bi nii mu fi tey vraiment mu rafetlu ah yaa Ibrahima également également président du conseil communal de la jeunesse boo xam également Mame le Meng euh, également tamit conseil municipal également président de la commission sport sport euh, du de la commune de Médina là Denis assister également à la remise du trophée des des du, du vainqueur du tournoi euh, au, capitaine de l'équipe euh, de Andu Tokhol Ngaraf également, qui se sera remis également par Madame Diawara. Euh, également, le maire a eu l'honneur de donner à cette dame nous remettre le trophée, vraiment. Nous remercions encore une fois la mairie de Dakar, à travers son maire, M. et tous ceux qui étaient là. Voilà, le maître de cérémonie m'a annoncé le remise symbolique. micro. Et comme l'année dernière, c'est l'association d'Engaraf qui vient encore une fois de remporter la finale. Donc bravo à Ngaraf, bravo à toute la Médina, bravo à Massou Ayanda. Je sais pas si c'est Adama voilà comme Andy Dokhol Ngaraf moko remporté pour la deuxième fois sous les du coach également Tamit Lakh Lakh xana rek dañuy voilà voilà voilà le jubilé de Samuel, Lakh dañuy jël ah, Là, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Ah, non, non, Ça nous rappelle un peu, au soir du 7 février 2024, 2022. Vraiment. Voilà, voilà Voilà. lu la voilà, voilà, voilà, xam nga. voilà, sans problème, sans voilà, Amadou Sidi Bari. Ah, ah. capitaine voilà, voilà, voilà, impression? Ah, voilà, voilà, voilà, mais dafa mel ni ñu ñoo moom fii de léegi moom gars yi ñu ñaan njëkk pour ñu bàyyi coupe bi. kan ngay remercier. maa ngi remercier waa Medina yëpp ak kii nii ñu organise affaire bi kontaan nañ trop ah. ñu ngi leen kontaane euh, ñu ngi leen di nag wax na yàlla na affaire bi yokk jëm ci kanam ci kanam incha allah. métti woon na mais on l'a perdu euh, te beneen mooy dàq quoi parce que joué go si fula joué nañ ko si fayda mais xam nga rek lu yàlla bind la woon ñu ñàkk ko. di masawut képp ku dëkk ak Sandiaba ñëpp di leen wan ne beneen yoon mooy dàq quoi incha allah. bii nii di euh, kii tam parce que dañu doon rendre hommage Ayanda te kooku ñëpp xam nañ ko si football quoi. Euh, ñëpp xam nañ ko côté bii nii di di ko ñaanal tamit moom jëmmam mu yàgg fi lool. Euh, waaw di staff Sandiaba bi ñëpp di féliciter tam waa Ngaraf parce que mérité nañ ko quoi joué nañ match bu neex fair play ñu gagné ñu ànd kii wante waaw merci. jaxate bu honorable député moo koy remettre également tam au vainqueur de la troisième place voilà voilà vraiment tamit voilà ok voilà Adama su tuuti. voilà ma jël entraîneur ou président ma am président bu sax ànd nga raf entraîneur bi moom lay jël ni ma lay féliciter. waaw merci beaucoup merci beaucoup c'est gentil merci beaucoup. mais mais deux fois ngou ko remporté hein deux fois lan moy ce secret. waaw euh, may may may remercier ñop hein juste di remercier aussi amicale des associations. voilà comme ni nga ma ko rek man dama wax secret bi du lenn lu dul liggéey quoi boo xoolee man toujours loolu laay prôné liggéey quoi dama koy wax gars yi ma ne leen euh, tey jii booy boo ñu egg niveau bii ni. pour te dire la vérité 3h lañuy entraîner entraîné ba 17 h 30 voilà te équipe mo bokkal euh, tournoi bi yëpp gëm naa ne ay équipe yo xamné ne day xëy ay sélection la xam nga wala yoy mais école football la won voilà après ànd ak ñom ban ban ba xalé yi di voilà non la démé école football la won mag ñom presque ñoo dëkk ci Médina bi ñëpp ñu Ngaraaf am ñu dëkk yeen quartier voilà ñu ñëw ba adhéré si association bi tay ni voilà man nak ma continuer liguey ak ñom waaw lool mo indi résultat yi ni tay parce que bo xolé équipe bi mo jël coupe daw pratiquement ñaari ñaari nouveauté ñaari renfort ñoo ci ko par rapport ak ñu jëlone coupe daw mais les le même groupe mo nekkaat ni. voilà donc comme ni mu koy waxee rek damay wax ne liggéey rek moo ñu indi fii tey liggéey rek moo ñu may li ñu am mot de remerciement également. voilà di remercier presque toutes les équipes di remercier aussi euh, dirigeant amical des associations vraiment initiative comme nous mu ko au début rek initiative boo xam ne pour yëpp ko saluer parce que gis nga joué nañ ko si fair play association ànd doxal ngaraaf gagné na coupe bi malgré que euh, Sanche ba perte mais gis nga ñu ngi saafonte ñu ngi ree pour wane les ñaari équipes yi vraiment équipe yi fair play lañ quoi donc maa ngi remercier aussi équipe bi nga xam mo moo association bi nga xam mo moo jógee mom euh, aussi di wax que démérité wul xam nga final mo démé nonou foog am ku gagner foog am ku perte maa ngi leen aussi et puis di remercier tous les associations yi nga xam participer dans ce tournoi bi di remercier Dak aussi ci accompagnement biñ def ak gaay vraiment content nañ trop quoi. waaw lu lu Moussa ñu lay nuyu bu baaxa baaxa baax donc di la jaajeufal bu baax di wax ne on est un peu content par rapport à ce euh, li nous avons fait ce journée on n'a pas la déception bien vrai qu'on sait que c'est un peu difficile des fois pas jouer finale perte mais bon le gën am solo ce n'était pas de gagner mais de de participer à ce joli à ce fête ne je me dis pas que je suis perdu je suis très content parce que même tout la monde, hier on a parlé jusqu'à 1h du matin pour nous dire qu'encore une fois liggéey rek mo am solo parce que li ngay rek loolu ngay fayeeku ci aduna donc on remercie encore une fois l'amicale des associations de la Médina pour cette belle prestation Je remercie remercier aussi di féliciter ñi nga xamantene moy suñu mbokk yi nga xamantene ne ñoom lañ doon seen muy wa and doxal ngaraf ñu joué une très belle finale malgré qu'on a joué une très belle finale mënon bëri woon na tension mais c'était normal parce que ku nekk won nga gagner parce que coupe amicale des associations ñëpp koy rêver gagner mais le plus important c'était de faire participer la population médinoise Nous avons football donc nous remercions encore une fois nous nga Médina nous remercions M. le maire Bamba Fall nous remercier toutes les autorités le ministre Seydou Ousmane nous nous aussi donc Média yi tak Medina Médina TV Médina ñep ñep ñep M27 Pro ñëpp Japonais. ñëpp japp nañ sa donc c'était joli et c'est ça la fait fait la Medina. la Medina a encore gagné c'est la Medina qui a encore gagné donc félicitations à l'association And Doxal et courage à l'association Jeunesse Consciente donc di wax gaay yi ba deuxième édition inchallah day